li nga xam bopp borom maa ngi dégg ñi ne cinq ñi ne quatre mais nuyu fuñ taxaw ni fuñ taxaw tax di xaar rek biche lañuy xaaragum noonu taxaw ba léegi di xaar li nga xam ne moo xew autour li nga xam mooy gis na gaay ñoo xaar rek di xool euh, ñi nga xam ñoo dëkk fii autour di xaar rek ne gannaaw bu usmaan Sonko ñu taxaw xool mais lañu bëgg di avancer ñu xool yi dund yooyu bëggoon xool li dund autour li nga xam ne ñoo dëkk fi nga en trois di terminal di xaar rek ah waaw dañ bëgg a jege jege tuuti jege ñu xaw a jege maanaam état bi mën si loolu moom moo jaaduwul te ñi ñi fiy gaañu ak ñi fiy dee yëpp suñu doomu réew mi kese lañu kon nag Macky Sall na dawal moment yërmande xam ni moment gaañ bi mu gaañ xale yi jaru ko moom moom Macky Sall na xam ni askan bi muy dóor nii ñoo ko faloon démb askan bi bi muy dóor nii ñoo ko doon moment xeexal askan bi muy bi muy dóor nii koroog bi bi ko Macky Sall euh, bi ko Abdoulaye Wade oowee xale yi ñoo ko gunge woon kon donc moom na dawal mooma yërmande te te bàyyi xale yi xam ni mooma ñoom Ousmane Sonko moo moo nekk seen xol Ousmane Sonko la bëgg te Ousmane Sonko doomu Sénégal la Ousmane Sonko du doomu Guinée du doomu du doomu du doomu du mama euh, euh, bitim réew France yooyu Ousmane Sonko doomu Sénégal la te kenn kenn gënu kaa dëkk Sénégal fu waaye am si Sénégal rek am na fa kon nag bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wax ni Ousmane Sonko maanaam warul mën a nekk doon président pour lan Ousmane Sonko day doon président bu ko yàlla bu ma tuddee te gam yàlla doo doon président Sénégal bu ko yàlla tuddee 2024 Ousmane Sonko moo doon président Sénégal am mu neex leen mu neex leen parce que yàlla si boppam bu tawee bu tawee nga ne taw bi yàlla taw bi yàlla du ko fi da koy jël moment yóbbu ko fa neen yow yaakaar naa yow yaay buuse dem waaye taw bi moment fa mu ko war a tawee rey mu ma taal waaw lii taal bi ñu taal bis bi nii jaru ko te lii lépp naxaru naxaru xale yi moo war a ñu taal bis yi parce que amuñu fu fuñ ko jooytoo parce que ñoom ak a ak ñoom ak ñoom ak takk der yi ñu ngi si ñoom takk der yi leen di moment di di leen dóor ay bal di leen dóor ay recommencel moo tax xale yi amuñu fuñ ko a jooytoo lu li xam ne kataa beek moom ko moo tax ñu def lii waaye fekkoon moment Macky Sall yërëmoon na moom askan bi moom dina wax ni na leen bàyyi lépp si suuf parce que moom moo fi waxoon ni am na ñoo xam ne du ma leen boo leen laalee réew mi tàkk kon ñooñu du ma leen du ma leen laal moom moo ko waxoon am na ku fi defoon loo xam ne dafa ni bu gars yi waxee ne téye ko daf ne du ma ko téye su ma ko moom a réew mu tàkk kon nag ba mu xamee loolu bi mu amee yërmande boobu war na ko war na ko am si yërmande si Ousmane Sonko waaw jërë ngeen jëf merci dégg ngeen kàddu yu mu wax kàddu yi dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu noonu mu wax ñu ne nañu reculer dañu war a reculer laay gis nga xaar rek di xaar da ngeen kàddu yu mu wax am solo yu mu yëkkati maanaam li mu jamono bi le comme ni ko góor googu lay waxee ak eh, ki nga xam ne moom la ñu njëkk jël wala boobu ñi nga xam la ñu daanaka lépp dafa fësal li nga xamante ni moo di eh, détermination bi nga xam ne ndaw ñi am nañu ko ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko dëgg la bii si ñun ñoo ko moom moomeelu askan bi la wareef du yàqu ko mais comme ni ko góor gi waxee sànq Euh, ku sës ci miir daanaka dootoo amati choix ci li ngay def maanaam dañuy wax ne muus boo ko toppee ba mu sës ci euh, miir bul euh, xelaat bu gëstoo lan la lay war a def yaakaar naa ne ndaw ñi peut-être dañoo jàpp ne façon bi la ñu am ngir wanee ko seen li nga xam moo di seen ay naqar mais Euh, en tout cas euh, li mën na jur ay jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci euh, li wër côté bi ndax a tout moment mën nañ séntu benn explosion ci li nga xamante ni moo di pono oto bi wala li nga xam ne parce essence a koy dawal wala boog itam gasoil kon yaakaar naa lu ni mel même saxaar bi rek doonul loo xamante ni gënal la ci ñi nga ne ñoo fi dëkkee mais ñu fàttali rek ñu ngi ci tey li nga xamante ni moo di le mars doonoon date boo xamante ni bu ñëpp doon bàyyi xel la en tout cas Ousmane Sonko ci boppam ba jot ci xibaar mënagul yegg si fi nga xamante ni moo di euh, tribunal bu Dakar la ko waral moo di ay jàppante daanaka yoo xamante ni am na ci diggam xam moo di les forces de l'ordre daanaka mooy euh, dañ ko bëgg a génnee ci otoom ngir yëpp ko ci seen oto yóbbu ko waaye mel na ni militant yi la amoon bu njëkk wala boog itam euh, ci le deux bi passé nanguwuñu ko ngir mu xewaat nga gi ne ñoom bu amee kenn wala gis nga tàkk-tàkk bi daanaka dafay topp li nga xam ne moo di euh, essence bi wala boog itam carburant bi foofu la topp mu doon événement boo xam ne voilà gisaguñu sapeur ba léegi xamuñu voilà dañ ci amul pexe wala déet voilà war nañu wax sapeur mu ñëw parce que affaire bi mi ngi dégénéré. Mhm. te affaire bi kii bi essence bi lay topp ci ay place voilà mu ngi dem ci place bi. mu ngi buñ mënee orienté wu tuuti buñ mënee orienté wu voilà parce que tàkk bi yàgg na ah yàgg na mais ba léegi ñoom voilà ñoo ngi ci li nga ni moo di ay euh, grenade lacrymogène en tout cas mu ngi jëm ci li nga xam moo di place yi boobu ba léegi ñu ngi wax di interpellé ñi xam ne di sapeur pompier leen voilà gis nañu mu doon ay image yu doy waar daw yaram lool Euh, fii lay xewee Médina la ñu nekk en tout cas euh, côté Rebeuss sori wuñu ko dara lu tolloog li nga xamante ni moo di ñetti biis yu ñu taal bi jege lool ay place ba léegi gis nañu daanaka tàkk-tàkkal bi lu yàgg lool la tàkk mën na daanaka waxtu wala boog lu ko jege mais mu ngi dugg eh, eh, jamono bi la voilà ci pharmacie bi voilà donte la ñoom teyoon nañu si eh, Ahmadou Bamba en même temps place bi nga xamante ni euh, voilà gasoil bi mooy yool di dugg muy lu doy waar voilà ana sapeur pompier ba léegi ñuy koy laaj askan bee ngi laaj sapeur ani mu depuis mu tàkk ba léegi pourquoi mënuñ ci am ah pompe yaa ngi dox mais kenn mënu ko téye voilà ñoo ngi pompe voilà ñoo ngi pompe mais en tout cas ba léegi voilà gasoil bi ci oto bi mooy doog di wàcc noonu wala di yol oh oh Taïf automobile euh, ci la ñu nekk voilà euh, pharmacie bi am na beneen oto boo xam ne mu ngi taxaw Euh, en tout cas à tout moment euh, tàkk-tàkk bi mën na ci yegsi pharmacie bi daanaka mën nañ ne safara si yegsi na fi euh, lii mu doon ay mbir yoo xam ne yu ñu waroon a mën a war a moytu la voilà mu doon ay mbir yoo xam ne yu ñu war a mën a moytu la voilà ay du yem ci bopp borom jàpp nañu ne ñii nga xamante ni ñoo di voilà pardon les gars jàmbaar merci pardon pardon pardon ñëwal attention voilà mu noonu voilà mu doon lu doy waar image yu daw yaram voilà ñu ngi demandé ana sapeur pompier ba léegi ñu ko en tout cas euh, ñi nga xam ne ñoo yor ay oto wala boog itam yor fi seen ay ñu ngi def le tout ngir man ko génnee wala mu doon image yu doy waar daw yaram lool ay biis yoo xam ne taal nañu ko benn bi daanaka jàpp jëm ci li nga xamante ni moo di pharmacie Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni sax tëjoon nañu ko voilà ndaw yaa ngi jàpp ngir mën a boox oto bi ngir mu génn voilà ñu ngi jàpp ngir boox oto bi ngir mu génn voilà mu doon lu doy waar voilà dañ koy jéem a jàpp ngir mu génn voilà dañ koy jéem a jàpp bokk ngir mu génn mais en tout cas ba léegi gisaguñu sapeur en tout ca des fois ñu dégg les forces de l'ordre dóor li xam ne moo di ay grenade ay grenade lacrymogène voilà mu ngi noonu mu ngi noonu ndaw ñi seen bopp ñoo ñëw ngir euh, jàppale li nga xam ni moo di gars yi ngir ñu génn voilà ndaw ñi seen bopp ñi nga xam ne ñoo nekk ci manifestation bi voilà toujours ñoo nekk ci terrain bi voilà mu mel ni moment bii euh, xaw nañu am ak ay jàppale ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi parce que oto bii nga xam ne ñu ngi koy génnee jàpp nañu ne ñi koy def mooy ndaw ñi nga xam ne ñooy manifesté wu ñoo ñëw voilà voilà muy noonu Euh, mu doon image yu doy waar te daw yaram loolu ami yaakaar lii bu yàqoo ñëpp la yàqul man mm. damaa tiis ba mujjee naa woo sapeur pompier nga xamante ne mm-hmm. nee na ñoo ngi ñëw léegi dafa mel ni booba léegi sapeur yëguñu woon mbir mi mm-hmm. parce que bu ma leen wooyee daañ naka dañoo tiit na ma lan moo xew foofu mën na leen ay manifestation mm-hmm. mais nee nañu ñoo ngi gaaw a ñëw ndax lii yaakaar naa ne booba léegi lu doy waar la sapeur waroon naa ñëw bu yàgg dama xam nañ ko yëgoon wala nu na na waar doy na waar en tout cas xamuñu dëgg-dëgg lan moo waral seen ñàkk ba léegi fi nga xamante ni ni euh, moo di euh, takk yi am fii nga xamante ni moo di Médina waaye euh, ñaari bis wala ñett voilà yoo xamante ni taal nañu ko fii ba tax lu ni mel sabab sabab daanaka takk-takkal bi jëmali fi nga xamante ni moo di pharmacie Cheikh Ahmadou Bamba waaye tam am beneen bërëb boo xamante ni Taïf automobile la tudd Euh, di jaay ay pièces détachées dafa mel ni mais ba léegi toujours ñu ngi gis ay grenade lacrymogène di jib bàyyi ko ci ñi xam ni moo di alkaati yi te moment bii ñu toll daanaka ñëpp solution la ñuy wut ngir euh, takk-takk lu ñu mel mën fay ndax ñu gis ndaw ñi seen bopp ñu ngi wut suuf di ñëw di sotti ñu ngi jéem def effort ngir euh, oto yi fa jege sax ngir ñu génne leen mais à tout moment jege ko wóorul parce que mën na explosion wóorul parce que ndeysaan ñoom ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñoo daanaka ñoom ñoom ñoo ñu ko defoon ñooy nekk instant bi ndeysaan mhm. di di di di collaboré wu ak ñi nga xamante ne mhm. ñoo di takk der yi ngir ngir far ngir ngir li nga mhm. xamante ne mooy euh, tàkk daal di fay ñu bëri li ñu tuddoon ragal moo di courant ndax euh, fi mu jëm daanaka courant moo fa nekk euh, kon à tout moment mu tàkk rek daanaka da ngay gis ne day gën a jafe day gën a compliqué mbir mi doy na waar actuellement courant yaa ngi noonu ci kaw feu rouge bi également donc loo xamante ne la daal mën na indi njeexital ñooñ ñaan daal yàlla ja yàlla def si jàmm macha allah gars yi mujjee nañ ko fay voilà ndaw yee ngi tàccu seen bopp ndaw yee ngi tàccu seen bopp ñoo defoon lu ni mel en même temps ñu woon di solution bi dafa mel ni dafa mel ni ndaw ñi xamal nañu seen boppu que ne euh, lu ni mel moomeelu réew mi la wala boog itam lu ni mel moomeelu seenu reculer Libasso reculer attention mu ngi noonu ndaw yee ko fay si sapeur gisuñu ko mais ndaw ñi ñëw nañu ngir euh, wutum solution ci li nga xamante ni xew na fi. voilà kenn ngi noonu kenn ngeen waroo yàq. ñun Macky Sall. ah sunu waay la mi ngi liggéey mi ngi mais mais mais xam nga war a bàyyi ah jàpp ak tëj. trois mandats boo ko waxee ñu rey ndeyam. jaajëf mu ngi noonu mu ngi noonu ndaw ñi seen bopp ñoo wàcc ngir. Euh, fay li nga xamante ni moo di tàkk-tàkk bi nga xam ne jëm ne woon na ci fi nga xam moo di Taïf immobile wala boog Taïf automobile à tout moment attention attention attention mu ngi noonu ndaw ñi seen bopp taxawu nañu li nga xam ne mooy tàkk-tàkk bi ba mu fay gis nañu mel na ni sax nañu ci ñëw ngir fay takk tàkk bi mais ba léegi fi nga xamante ni voilà moo di pharmacie bi pharmacie bi ci la ñu nekk nii voilà Cheikh Ahmadou Bamba